asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi di nuyu waat bu baax di leen ziare waaye dellusi waat nañ incha allah ñu fas yéene àggale deuxième partie bi ci vidéo bi jàlloon ñu doon wax ci xaydu te gi leeraloon nañ taarif bi leeral li nga xamante se ni nii mooy mudda bi mi am waaye ñu fas yéene leeral yi nga xamante se ni moom la la xaydu di tere waaye laataa loolu ñu ngi lay ñaan bu dee abonné goo incha allah nga abonné ci seen bi da nga bës cloche de notification bi bu defee incha allah benn vidéo du la raw léegi jigéen gi nga xamante si ne nii dafa amee xaydu lislaam da koy tere mu daal di julli maanaam boo amee deret ji kon lislaam tere na ko mu julli boobu mooy première bi ñaareel bi lislaam da koy tere mu daal di laal kaamil maanaam kaamil alquran lislaam tere na mu laal ko ñetteel bi mooy l'islam tamit tere na ko mu booloo ak sox a ah, jëkkëram maanaam mook boroom këram ñu booloo l'islam da ko ko tere ak li nga xamante si ni tamit mooy dugg ci biir jàkka l'islam da koy tere ak li nga xamante si ni mooy wër tawaaf maam ci kaaba ga wër tawaaf l'islam koy tere ak li nga xamante si ni mooy woor weeru koor l'islam da ko koy tere maanaam ki nga xamante si ni mooy jigéen gi amee xaydu yii nii yi la wax nii l'islam da koy tere waye li tax l'islam di ko téré moy jamono ji nga xamanteni ni dérèt ji jamono joju dérèt ji dafa nek lo xamni sobé sobe la ci mom kon yii yëpp nga xamanteni ni téré tere na ko kon war na ko bu baax baax légui ni bu fekk bu démé bi nga xamné ba xamné ne inshallah allah koor gi mom da koy fay manam bu ko fekkon ci biir koor gi mu woro ñaari fan wala ñatt ba nga xamanteni ni nii euh, dem na ba ci ñettel fan ba daal di amee ji nga xamné li ci dess wóoru ko woon maanaam nga xam ne lislaam moo ko ko tere bu laabee incha allah day fay li nga xamante si ni mooy koor gi ak lu ci mën a euh, lu mu ci mënoon ñàkk bañ a woor li mu ci wóoru woon rek lay fay li mu ci wooroon nag amul benn problème waaye bu dee julli gi moom lislaam da ko koy jéggal lislaam nee na ko bul julli li li nga xamante si julli yi rawoon na ko julli yu ko li ko yim faatoon boobaa da koy bàyyi noonu maanaam du ko fay kon koor gi rek lay fay incha allah kon yi moo nekkoon yi nga xamante si ni nii jigéen gi amee mbërëk xayda lislaam da koy tere mu mu def yi yëpp ñi leen tuddal incha allah kon nañ ko bàyyi xel bu baax a baax mu nekkoon lu am solo lool jamono ji lool lool incha allah ci vidéo bii di ñëw dinañ leeral lan mooy nifaas nifaas tamit beneen deret la boo xam ne nii ci jigéen la lay nekk incha allah dinañ ko leeral ci vidéo bii di ñëw incha allah di leen ñaan bu baax ngeen jàllale vidéo yu baax am na solo lool ñu leen jox di dajee ba ci vidéo bii di ñëw incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu Mm-hmm.